Sonko la ne bu mën a fen boo xam ne lii yéen a ko déggandoo mag ndaw lépp donc jàppale ni Mollah moom day xeex fen day xeexi kàcc day xeex lu dul dëgg bon kan la kan ma ci def Ousmane Ba moom nee na deux milliards lañ may yónnee <laughs> moom mooy seen maam non man comprendre naa lan moo tax yi di ma bàyyi xel parce que dofut nag mag yi neexul ba neexul mais xam na fenkat mu ra ak Macky ragalul Akhenaton ragalul Jiji ragalul lijjantiwu leen sax parce que xam ne ci fen rek la ñuy dox lu tax Macky Macky Sall kenn mooy problème am mooy Mollah Morgun Kaw. bu ñuy nekk ci réseaux sociaux yi fële ne toog toog ay pare nga taxawaanu seen yoon bu dee ñooñu la rek Afrique di defaru de bu dee ñooñu ñooñu mosoo leen gis ci terrain donc Ousmane Ba nag moo leen gën a si buru moom Ba moom moom baal moom moom moom vraiment dama taayee wax ci moom moom deux milliards la ma yónnee ndeysaan ah. Monopoly de Monopoly comme ma journaliste euh, bi ci Sonko deux millions la mort, wax ok Akhenaton ne deux cent cinquante millions mi quatre cent cinquante millions hein? ak Ousmane Ba milliards comme deux milliards quatre millions oh!

l'ingénierie social loolu am Sénégal fenn monte dagg taqale loolu moo am Sénégal dóor dil triande fen kàcc xam nga voilà quoi génération yoo xam ni bu dee ñoom rek duñ fekk gàcce ko voilà mais nag ñun on est di xeexal prolétariat yi lu leen sawaay yërim naan l'homo paste fensis l'homo <laughs> paste sis ñoom Akhenaton da la ko tuddee l'homme pastéfensis <laughs> ñoom mais gars yooyu dañu feebar gars yi <laughs> entre mensonge et manipulation la ñuy dund ku leen bàyyi woon cent ans duñu indil sénégalais dara dara cent ans dañuy toog di fenn rek di yeewu di fenn rek di yeewu di yéegal ak a wàccee <laughs> bàyyi leen duul leen kàcc bàyyi leen fen buñ leen di faral ñii di leen faral ñi gëmuñu dara de ñii noonu dara lu leen arrangé rek ñi ngi ci biir lu leen arrangé wul ñu ñu ñu ñu beddi <laughs> man nag loolu benn réew la ma gënal camion fekk man ku ma bàyyi yaa xam loolu intéressé wu ma man wutuma fekk benn ginaaru kenn nenu ma donc waruma lu neex kenn man sama dëgg ma ñor te dinaa ko dox di ko xeex injustice kuñ ko fi teg ma taxaw comme nu ma ko fi defalee Ousmane Sonko ba léegi bàyyiwuma ko ko teg ma taxaw. jàgg kenn seetaan du ma mës seetaan dans ma vie ngay traay yi ngeen jàpp ay doomu aadama di leen toroxal di leen teg injustice comme nu ma ko yàgg defee noonu laa koy defee ko fi teg injustice Ousmane Sonko ma taxaw. voilà donc euh, ay fen ak ay manipulation muy Ousmane Sonko di di ki nga xam ne moom mooy Mimi maire Mimi yëpp vraiment li ñu ko def metti na ci ay fen ci ay caaxaan ci ay règlement de compte politique lañ ko éliminer tooñ gu doy waar la tooñ gu taane la boo xam ne vraiment ah tooñ daal baaxul ndax tooñ du gàllaaj ku rayanteeg yéen ba tey toog ngeen jël ko assemblée ci jaayum doole toroxal ko ba mu ne tot jël ko sànni ci biti te di di xeexal ak ak yeleefu doomu aadama rawatina bu jigéen parce que jël ngeen fi jigéen ne dañ ko ay ñaari député dañ ko agressé jàpp député yooyu tëj leen ci kaso yi waaye Mimi Touré jigéen la ngeen toroxal ko assemblée nationale ba mu ne tot jël ko sànni ci biti loolu nag injustice la gis nga nit ak lum la mën a def bu subiree injustice fàtte lépp lu mu la mën a def nga taxaw xeexal ko man loolu laa gëm loolu mooy sama idéologie loolu mooy samay principe de lutte man bu ma gisee nit même bu doonoon sama noon di subir injustice dinaa jóg xeexal ko man loolu laa gëm donc Mimi waruñu ko seetaan mu su low waruñu ko seetaan mu nekk moom kese di subir injustice kon bépp épris de justice war nga taxaw xeexal Mimi Touré ndax sincèrement dañ ko tooñ dañ ko toññar si te lañ ko def lu ñaaw la rawatina ñu koy teg ci jigéen rafetul parce que liggéey na ko APR liggéey na ko ci politique bi c'est une grande dame li ngeen ko teg nag rafetut voilà te dinañ ci def seen kéemtalaay kàttan dinañ def live dinañ ko xeex dinañ ko d'ina dinaa dem ba ci moom ko interroger d'ina jël ay information d'ina ko xeexal ba mu jeex tàkk ba fu mu yem neex parce que man ay xeexu contre injustice la mais xeexu conviction la yu ma gëm ak ay principe idéologique yu may xeexee donc voilà duma ma doomu aadama boo xam ni damay wax lu waay ne lu neex nit di dox ci seen bànneex day dët duma ma seen jaam de doxuma ci lu leen neex de doxuma ci lu leen neex ay samay principe lay doxé sama idéologie lay doxé lool lay doxé té loolu moo fi jiitu Ousmane Sonko yalla mo def lool nak maa ñëk xex a ñëk wacc terrain bi maa ñëk yanu xër maa ñëk daqé a ñëk dam luma ma daj ci terrain bi bu ko <laughs> bu ko dajé bu ko dajee te wutuma dara té mom homme politique la dafa bëgg jël pouvoir dafa bëgg a nekk chef d'état donc vraiment man mom Ousmane Sonko non ñeewu ma ko de Ousmane Sonko ñeewu ma ko dé déedéet ñeewu ko maa nga gën parcours fuuf maa nga gën parcours fuuf nañ ñu teg en mille ñi ñi ngi xeex Ousmane Sonko gisuñu ko ah en 2012 ñi ngi xeex ñu dàmm ma Ousmane Sonko gisuñu ko Ousmane bu buñ ko gisee maa nga gën parcours fuuf bu seen Afrique doon taxaw ñu parcours combattant ba may xeex xeexut ba may rab rabut ba may génne ba may xeex injustice xeexut maa ko njëkk ci terrain bi te nee naa leen dina ma bàyyi ci terrain bi bu ko yàlla defalee ci ak am ñaari mandat dina dem may may continuer xex conviction la j'y gagne rien du tout rien absolument rien du tout voilà ko nak mom yalla moko def sincèrement ma ko njëkk ci xex bi ma gën tang ci xex bi ma ko gën jaar-jaar ko gën jaar-jaar voilà sincèrement je na taxaw fenn ne man kenn dawma du du daw ma foo xam ne pour profito nañ fa mayuma kenn ay buntu yuñ profito di ko exploité di ma jiiñ ay affaire non vraiment def mayuma ko sénégalais de man de lu waay def da maa monteel maa ngi nii de benn xol démb ak tey wax ji bëri na lool mais kenn mënu ma indil dara moo tax adduna dafa neex nga toog ci nga dox ci dëgg kenn mënuñu la plan parce que nekkoo di taxawaalu wala di dugg ay foo xam ne nit yi say noon di la plan man heureusement yalla suis ma may suis. bàyyi fenn sama slip fenn fenn fenn fumay joxé ñoy donc alhamdoulillah sincèrement lolu yalla liyel na ba nga xamni nit wax lu mais suis len leen 10000 mënuñu ma indil daara moo tax boo la xoolee sax ay góor jigéen dafay ne ay góoru wat bang joog monte bi xoola dagg ay photo dugal wane kii bi xoola xool ko mi mel nii xol bopp bi nu mu xol xoola noppi nu mu guddee ay góor jigéen lañ ko <laughs> ay góor jigéen loolu moom vraiment du xeexu principe bu bu nasaraani ñëwoon di seet di yëndu naan nii di liir lañ naan mais ñii ay nit waaye ji moom wax ci ay principe ay nekk di dagg non nopp bi dafa gàtt non tuñ bi dafa jigéen lañ daal loolu moom ñoo vraiment loolu mooy góor jigéen góor jigéen bi toogal ci kër gi say morom di xeex ngay toog di commenter loolu moom rab naa ko donc loolu moom yëfu góor jigéen la waaye yaakaaroon naa ni dinañ dem génneel ma au moins ne moom moo laa duggoon nga fii wala gel bi mu nangam nangam génne samay photo wala samay vidéo <laughs> te te dugg nañ ci dégg naa leen de dégg naa leen de dugg nañ fu ne barke alxuraan alxuraan laa waat. bildee Sénégal gis nga gars yi duñu dara am na ñenn ci ñoom de nee nañ Pastef lañ dem nañ ba ci samay nit di woote téléphone ak waaye yow amu leen dara kan kenn amul sama dara. daw ma fenn dimanche wu daw ma fenn joxe sama bopp daw ma fenn toog daw ma fenn futteeku loolu am loolu amul loolu amul dama ko liggéey quoi dama ko liggéey nag dama ko liggéey voilà mayuma sama benn doomu aadama sama noon di exploiter loolu bay tooñ ba ba ñu ma warta yàpp wala ñu warta yàpp samay militant di ma yàpp foofu moom c'est l'erreur de Ousmane Sonko moo tax bu ñu waxee ne leen Ousmane Sonko dem demul Sweet Beauté demoon na Sweet Beauté ñëpp taxaw ne demul Sweet boote ñëpp mu ñëw ne leen dem naa Sweet Beauté donc loolu moo indi lii lépp lépp li ko indi vraiment lépp li ko indi coow bi boobu ba léegi

bu buñ ko defee dañuy am luñ ciy ragal lool loolu c'est l'erreur fatale de Ousmane Sonko te Macky Abdoulaye Wade waxoon na ko ne lañ ne gars yi mu euh, gouvernement bi dañu puissant te ay nitu pexe lañ moytul loolu yëpp Abdoulaye Wade waxoon na ko mais malheureusement mujj na daanu ci piège bi quoi loolu moo sonnal ba ba léegi moo ñu sonnal lool di xeex nañ ba dee euh, c'est ça loolu mooy domage bi te man pretendre ma boo gisee ñuy wax Ousmane Sonko nag parce que moom dafa dafa aspirer donne un chef d'état un chef d'état pour aspirer donne il faut nga am lu ngay il faut nga daw yu beuri parce que du du du nitu un chef d'état du nitu neen du du nit bo xamné da nga am background check quoi il faut nga calculer lol fay faut pas fay fréquenter fo non non, génn rek di def lu la neex non non non non parce que da nga aspirer à être un chef d'état de aspirer à être un président de la république donc il faut sa background check set il faut nga xam fooy teg sa tànk fooy wax fooy <sighs> mais loolu loolu lu caaxaan daane nañu bëri daane nañu bëri ay Amérique ak ay ay question de mœurs question de fréquentation question lu bëri daane na ko fa daane na ko ci dëkk yi nga xam ne c'est des pays développés mais nag ñun moom ñu ñuy wax c'est des ñun ay les de bonne fois la ñu waxal ñi nga xam ne ay nit lañ waxuñoo ak ay fanatique ak ay dof ay wala yooyu moom waxuñoo ñoom quoi bon

num lay naté non la mel Sénégal nak ay nit la yo xamni boy xex da len di jaxal sax dañ na waaw yow fay ñu la yow gagné wo ci yow nangam ak nangam mais man de chaque jour ñu proposer ma bañ ba ci sama waji ji ci la mujj. waaw bi ndaysan yeah bro man xam nga lolu xam na man lolu leer na ma yow faro ci Sonko faro ci Macky xam nga yow dañ doon dañuy and sax depuis bu yagg mais des dañuy ànd jàppante parce que man dama lay wan carrément ni la Macky laa yow nga ni ma man du ma Macky du ma Sonko ku def naka sudul noonu dama koy dama koy teg ci yoon te man am naa ni xam yow ku def naka sudul noonu danga koy teg ci yoon àndoo kenn lool leer na ma mais Sénégalais tollu nañ instant bi foo xamante ni nii billaahi wallaahi wa taala dañuy foog ni yow da nga encaissé te encaissé woo ndax nii ñoom seen biir bopp loolu lañ jàpp te. noonu lañ ko dindi man nag looloo ma metti quoi. ah non noonu lañ mel. fekk ñuy foog ni xam nga yow da nga encaissé pour détruire Sonko da fekk yow encaissé woo man loolu leer na ma parce que y a même pas trois jours xam nga maa ngi lay woo ci loo xamante ni nii mooy loolu te bañ ba tëdd suuf. barke xam man foofu laay waxee quoi waaw foofu laay waxee ah mais yàlla la yàlla jàppale rek yàlla taxawu la. waaw gën a dëgëral sa taxawaay xam nga nga mën sa combat comme ni nga ko mënee quoi. Eh, gor nag ndeysaan chaque jour man loolu laa chaque jour am ay proposition chaque jour nit di ñëw mais bu ma doon jaayee sax mais du ma dem ci ay nu mu euh, wala dooro gay ay courtier non soxla ma ku nekk si ñu diggante bu ma doon jaayu damay dem ci ponk wala ma ne leen indil leen indil leen ma Marème fay wala indil leen ma Macky Sall man man mii man ak li ma fi xeex ak sama xeex bi may jël ay deux cent cinquante millions <laughs> mais pauvreté baaxut deux cent cinquante millions hôtelu cinq cent dollars canadien gars yi publicité mel ni ko benn suite <laughs> waay pauvreté dafa bon nag pauvreté c'est la pire l'oisiveté la pauvreté ay dis, la war la dafa metti na ak pauvreté ci ci ci doomu Afrique yi quoi billahi dañuy pauvre ba idéologie pauvre pauvre ba ñom pour ñom nit am dollars 500 dollars dem jël chambre tok fa analyser <laughs> mais ci neex pourtant nga dem bu nekk ca ca pale ba ne ma woy Mollah bon lu ma bëggoon mooy dama am sama benn grand boo xam ni jël ay photo yónnee ma tout parce que man moom ay preuve waaw waaw grand bi day day day jàppale Macky Sall xam nga daf la bëggoon yóbbu présenté la Macky Sall tu <laughs> pare lu ñuy wax yëpp ma ci groupe bi waa ji wax wax wax wax wax ma ne ko grand mu ne waaw ma ne ko nag man benn problème laa am quoi parce que man munuma lekk alalu ger munuma lekk alal bu ma moomul munuma sànq wala sacrifier sama askan loolu moom munuma ko ndeysaan ñu am gàcce nag ñu am ñu rus nag parce que yaakaaroon nañ ni à travers moi ñoom yëngal nañ seen secteur yëpp ak seen connexion yi ba nga xam ne dañ ñooy jóg rek ci Macky Sall rek Macky Sall la jox maag yooyu malheureusement loolu lay wax nii quoi ne ma yow boo doon jël euh, boole woon naa la grand boo xam ni da la doon yóbbu ci Macky Sall direct mais malheureusement loolu <laughs> yooyu intéressé wu ma quoi mais nag am na sénégal yoo xam ni buñ la jiinee vendu wala sàcc nga wala dañ laa ger mais noonu lañ mel seen papa sax ger ka dañ ko yer se ndey ja doom ja boo ku ko bañ sa yaay baaxul de gis ngeen fii dafa am gor yoo xam ni bu ñuy dee dañuy gore bu ñuy dund dañuy gore am na ñoo xam ni dañoo gorewul de nature weenu ñàkk ngor lañ leen nàmpale donc ñu gisee kuy bañ ñoom pour ñoom dañ koy jox donc ñoom loolu la ñuy jàpp quoi mais man moom ma soxla woon xaalis sincèrement doo rogay du ci yow ilman la dua tax ci yéen damay jaar ca ponkal ma wala ne ko dang may jox la may jox wala ma dem sama yoon mais man mom du eh, ma aw ma quoi awu ma duma xar duma ma duma nak duma nag du ma mbaam xuux. voilà ñu non man lool leer na ma yow faro si Sonko faro si makki xam nga yow dañ doon dañuy and sax depuis bu mais des fois dañuy ànd jàppante parce que man dama lay wan carrément ni la Macky laa yow nga ni ma man du ma Macky du ma Sonko ku def naka sudul noonu dama koy dama koy teg ci yoon te man naa ni xam nga yow ku def naka sudul noonu danga koy teg ci yoon àndoo kenn loolu leer na ma mais sénégalais tollu nañ instant bi foo xamante ni nii billahi wallahi wa dañuy foog ni yow danga nga te encaissé woo instant nii ñoom seen biir bopp loolu lañ jàpp te dara mënu ko dindi man nag loolo ma metti quoi le fait que ñuy foog ni xam nga yow da nga encaissé pour détruire sonko da fekk yow encaissé ko man loolu leer na ma parce que yaa même pas trois jours xam nga maa ngi lay woo ci loo xamante ni nii mooy loolu te da nga bañ ba tëdd suuf donc xam nga man foofu laay waxee quoi waaw foofu laay waxee ah mais yàlla lay ndeysaan après nag ma ne ma mais voilà fa nga fa nga jóg ci sa bopp fa nga lijjanti sa na baax na baax ndeysaan dama dul encaissé lolou moy sama problème dama dul encaissé dara munul fexé ba ma encaissé dara duma jaay sama ngor damay xol nit ñi les yeux du ma jaay sama ngor man ngor ben la duma ko jaay mukk bon bu so lolou la comme ni nga waxé hein ah, ba légui rek ñi ngi fuñ nekkon jëgé wuñ fa dé jëgé wuñ fa dé jëgé wuñ fa dé da ngeen ko japp nak jëgé wuñ fa dé na aduna bi yépp bu leen bàyyi moolaa dé sincèrement bu leen ma bayyi dé billahi dina ko ci tek diko ci tek parce que dengan da ngeen di yow suba ngon di wax ci man parce que te man nak lolu lolu <laughs> aussi bon comme ni gaay di waxee buzz la ah. oui il faut ngeen may partager tag ko te man du len leen nak buma paré ni buma togué tout rek nan sama café cool ma tok bind ben affaire tak tak bàyyi len te man nak dama am démocratie lu ci gëna neex moy même gaay yi bu la ko ñëw live bi saga ñëpp la libéré dama libéré gaay yëpp bàyyi len xol len yéen a ngi bàyyeeku di saaga di wax mais xoolal effacé wu ma kenn bloqué wu ma kenn loolu mooy yëfu bandi kii gars yi def live yi quatre-vingt-dix pour cent boo demee seen live yi dañuy restreindre page yi dafa am ñuy ñu war a commenté ak ñu war a commenté man dama leen bàyyi yéen ngeen di saaga ndey ba bàyyi leen moo laa sa nangam taan du ma la effacé moo laa damay toj ma eff xoolal des fois ma ñëw amee ne eh mi ngi kuule eh, eh, eh alalu bandi la yow moo laa lekku bandi lekku bandi la la de ku ko war a dëgër na bopp wow le na te kenn mënu ko réguler loo kenn dama ne man fi ma toog nii billahi duma leen bloqué duma leen effacé non damay xaar suba parce que suma si ndam li suba la bu leen bloqué après du leen mun a gis te damay live da ngeen di ñëw di seetaan par force man maa bëri doole moo la moo bëri doole eh, moo la moo bëri doole moo ñëw xoolal génn leen gars yi duñ génn toog ci laaj bi di ko xool génn yéen du ngeen am jom te génn sama live ñu ne tekk toog moo la moo bëri doole moo la moo bëri doole booy booy bi bu réewul ma ci moom la waaye téeréeri moo la moo bëri doole moom danaa leen duul sax ñu taxaw ñii gën a bëri 4000 la woon léegi ñu ngi 5000 duul festee gën leen live bi ñu toog ñii gën a ñëw ñu payin yéen laay wax la xanaa yéen laay wax xanaa ñu toog di ñëw loolu nag yàlla moo koy def moo la ma bëri doole moola xam nga lu ñu ne du commentaire li may wax di leen dugg ngeen dégg ko par force sama yoon nekku ci seen commentaire man seen commentaire mos ma Wah, wah, wax wax wax wax mooy dugg di nopp nopp wax lay dundee man li may wax eh, mu ngi seen nopp rek ci neex comment koo leen commentaire man boo leen bindoon seen faalewuma leen sax lijjantiwuma leen sax bi léegi yéen xamu leen ko ngeen xamu ko ngeen de <laughs> billahi lu jëm ma tëddee fii damay nelaw ba naaw moola ma bëri doole ay waay moola ma bëri doole moola non moola dafa réew dafa réew dafa réew billahi dafa réew <laughs> non moola dafa réew quoi non sama grand bi di woote nag caatata ba laagay yaa ngi woote de non mais laay laay sa boy bi dafa xamadi quoi fii la nekk di la gars yi fees fi del del del man dama leen gisoon ñaan désabonné la page désabonné man ne waaye yéen désabonné leen waaye man 2010 laa ubbi Facebook mu fees tepp ma ubbi benn Facebook mu fees <laughs> yi di ay asamaan di xotti ay suuf xotti ay ay ay ay océan di ñëw di di di laaj waaye désabonné wu leen ngeen xool <laughs> waaye vidéo bi du pour yéen de pour l' instant bu dee vidéo ngeen di seetaan ngeen xaar seen vidéo du pour yéen de déedéet. vidéo bi dafa am lu ko fi dafa am lu fi téye bi de bu jotee rek dañ ko def mais vidéo bi moom pour l'instant dafa am lu ko fi téye quoi sincèrement bu dee da ngeen a dañ kumpa rek moom mun na ñëw de mais dafa am lu ko fi téye pour l'instant pour l'instant moo ok waaw dama gis laaj géej laaj géej di sama grand laaj géej di woote après damay dem ah, maa ngi dem nag gars yi maa ngi teg sama zëm après dem maa leen di bëgg den jaar leen màggal den ndamoo yee maa fi jaaroon guys de toute façon bloqué wuñ bëgg free nañ free et puis life goes on ma nekk waa grand bi allo waaw eh, what's up man naka <laughs> waaw mais mu gayen waaw maa ngi nii rek maa ngi yoo xam maa ngi nii di jaay pare rek doom doom doom grande. xa xa xanaa da nga nekk live nii. live laa nekk live laa nekk. ah sur Instagram quoi. non non Facebook Facebook. ah sa sa kii Facebook la la envoyé ma lien ma dugg ci. direct waaw yow yow rek laay bàyyi de damay dem de laay damay dem damay dem maan bàyyi gars yi ñu ngi lay déglu ah Sénégal yi ñu ngi lay déglu de waxal looy wax après ma tëj dem maa ngi nii de. <laughs> ah yaa ngi ci kawam nii. maa nii ci kawam gaa yi lay déglu wax la wax wax la wax mais laa yow waa nga doon. ah waaw man de Macky la 100 pour cent. Macky Sall 100 cent. yàlla na la yàlla yàlla na la yàlla yàlla yërëm taxaare la àjjana. waaw yàlla na la yàlla yërëm taxaare <laughs> la àjjana. suuf oyof sa kaw sa bàmmeel yaatu. waaw ah. sedd guy ne na leer nañu ne gaañ. waaw yow xëy na loolu sa xalaat la rek. xam nga xam nga àddina conviction kese la. waaw. man man man Macky je yoruma postam. Hmm. yoruma otoom. Hmm. yoruma carburant. Hmm. yoruma këram. yoruma daraam. ok. et pour et pour te dire vrai. Macky man je les serré là, mais qu'une seule fois. Euh, donc, da nga ko bëggoon di serrer da da les mains tous les jours voilà. non non non non je veux te dire pour moi là, effectivement que. Mhm. Euh, des fois. c'est par des convictions que est ànd ak quoi. ok ok ok. je les serré là, mais qu'une seule fois moom xamuma mhm. man xam naa ko. Mhm. comprends, nga nous nous toog échanger. Mm-hmm. directement. mais en réalité je le constate je le vois et je le sens. Mm-hmm. je le sens. Mm-hmm. côté matériel je le constate dama il existe quelque chose de matériel par son bilan matériel. ah bon. je le sens par aussi son caractère d'humanité parce sa effectivement sa manière de gouverner bien que ni total am na lu bëri loo xam ne dafa des. waaw mais mais man na ma ci bilan man ma ci de. déglu ma la pour bilan Macky Sall de. waaw acca. mais la mais bon yow sama grand nga mais ñoo ñoo nekkandoo bi groupe kër gi tout ça quoi mais mais mais dama la dama la yëgal gars yi dañoo nañ jox ma deux cent cinquante millions deux cent cinquante millions ak tamit am na un milliard ah. yu ma Macky Sall yónnee ak deux milliards aussi quoi. non dama lay expliquer benn affaire. Hmm. xëy na Sénégalais yi comprendre ñu la. Hmm. mais man xam naa la. waaw dëgg la de. mun naa ne ci sama àddina. Hmm. bu ma doon bind sama biographie sa ak turu ñoom kilifa turu ñoom caab ak turu morgan turu gajaga turu di turu mereñteñ <laughs> dina ci jël moom une trentaine de pages ndeysaan parce que lu ñu dund la hmm. man ak yow dunduñu dunduñu àjjana yow xam nga ne dunduñu àjjana yow ci wut bi lañ tàmbalee di fanaan à sept waaw ba ba bi tey jii ku ci nekk di am say jabar di am say doom et tout sama ngénte sama ngénte doom bu nekk fu mu leen mënti fekk ndax ngeen déplacement ñëw toog. man ak yow man ak yow ñoom kilifa voyagé nañ sax ñuy jógee concert lu lekk sax duñ ko am. <laughs> waaw dëgg la. ah yaa ngi fàttali am na benn dibiteri bu nekkoon côté côté ki parcelle parcelle noonu nu mu tudd dibiteri nu mu tuddoon. dibiteri dañ fi ñu doon jëndee laxaasi rek fi ñu doon jëndee buti bi rek. <laughs> waaw fàttali naa ko de loolu yaa yëral yëral yëral yëral waaw waaw yëral yëral waaw dibiteri <laughs> yëral dañ dañ leen dañ leen jël boobu laxas yi quoi bu jëlee laxas yow nga warax dem sa yoon quoi <laughs> mais mais mais mais mais man parce que temps yi dañ ma dañ ma gerte dama bëri million dama bëri million dañ ma gerte nag dama bëri million temps yi war naa la yónnee sa war naa la yónnee quoi waaw non non non dama ma ñëwee ci loolu noonu waaw gis àddina àddina àddina hmm. yow loo fi am lu ne rek mérité nga hmm. parce que en terme d' engagement en terme d' engagement hmm. en terme aussi de fighting hmm. xeexal ci dëkk bi nii dëkk dëkk euh, responsabilité yi nga ci jël ak engagement yi nga ci jël ak risque yi nga ci jël na lu bari ndeysaan mais dama la waxal dana Macky Sall bu la joxee cent cinquante millions pour nga bàyyi coow li non man su fekkee ne li ngay wax nii c'est confirmé. non non non non non dama lay kaañal ay ay ay nekk ñu naan soi-disant Pastef ay ay ay catriote ñoo fa ja ñoo jaaroo ay catriote mooy gars yi ne ci internet yi di fen rek. non dégg naa leen dégg naa leen dama lay expliquer benn affaire pour ñu mën a comprendre. Hmm. yow xam nga ni wutuma pour nga dugal ma tey dama la doon nemmeeku parce que coow li bari na rek ma woo WhatsApp pour jot la. mais yow mais yow xam yow yow mais yow ki nga xam est-ce que yaa yaakaar yow xamee nga ko bu coow amee muy daaw ak dellu ginnaaw yow ki ma xam ki nga xam quoi. waaw non yow xam nga ko xamul Morgan. <laughs> mooy nekk koo xam ne nii appareil bi koy tiital ba muy yàqoo yàgg na appareil buy tiit Morgan pour pour nit ñi xamul sax nit ñi xamul ñaari nit laa gis ñoo xam. nekkoon Ousmane Sonko fu mu nekkoon bu ñuy xeex.

nee naa leen man fii lu ma fi waay jox fayoo ma da nga maa avance ndax ba ma tàmbalee ba tey maa ngi politique ci Macky Sall te Macky Sall mosuma jox fifteen ku ma yëkkati ay million may ma ko da nga maa avance ndax politique naa fi bañ coupé sama courant coupé sama ndox dàq samay doom lépp uniquement pour Macky Sall te kenn fekk ko ma lu ma ci waay jox da nga maa avance mais fayoo ma gis nga yow aussi combat yi ngeen mën a ci àddina ak man li ma fekkee ngeen dund ko ci coono tey jii nii bu ñu toogee di leen jéem a bundu xataal muy yow muy kilifa muy gajaga muy kii barki alxuraan sama fee fete maal ñaataat maa ngi ànd ak Macky Sall te mën a génn ñi ngi bokk benn lal bu ñu fanaan. am bokk benn néeg bu ñu fanaan. loolu mooy dama parce que ngeen taw ma. waaw loolu mooy ah. loolu mooy modèle de de modèle de démocratie quoi. Macky Sall laa àndal te maa ngi yéen ñoo bokk ay néeg yu ñuy fanaan. Mhm. dañuy envoyé ay audio dañuy waxtaan di joxante ay secret suñu jabar yi di toog suñu doom yi di ànd daw bu leen ma daw ma. musu leen maa yóbbu kasu musu ma leen ma yóbbu kasu gis nga patriote yi nañu bàyyi benn affaire fii ñuy nekk fii bu ñu gisee ay nit foog ay sarañaar la ñu dee autre chose dañuy nax seen bopp gis nga ce pays dañ koy teg ci yoon. man li ma la mooy su su la Macky Sall joxee deux cent cinquante millions jox la milliard mérité nga ko xam da lu ñoom bi ñuy nekk nekk ne dañuy jéem a dem ay ay alxuraan ak di wala di jéem a nekk di. di wut xaalis yaa ngi taxaw di fay pour dëkk bi taxaw ñoom ñi ngi nii di fayee ko seen i salaire yónneewul la dara nit ku ci nekk nag ñii dañuy dem jàng ji alxuraan fayee ko ci alxuraan ñii dem jàng ji mécanicien fayee ko ci mécanicien ñii dem jàng ci rab fayee ko ci rab ñii dem jàng ci tëgg sabar fayee ko ci tëgg sabar ñii nag nekk effectivement ci li nga xam ni moom la ñuy wax affaire revendication nekk ci affaire syndicalisme nekk ci affaire bañal doxal dëkk bi. nekk ci affaire patriotisme nekk ci affaire défendre yi dëkk bi yàlla di leen fay ci loolu. dëgg la waaw dëgg la en dehors mhm. mhm. su fekkee ne loolu am na. ay soo Macky Sall joxee deux cent cinquante millions pour nga noppi jour boobu laay bàyyi Macky Sall di ko tàmbalee saaga ba suba. lu tax loolu. xam tax. Mhm. su la ko joxee yow en réalité yow am na mérite bi parce que yow liggéey nga lu toll Mmh. mais naa mën a jóge fenn ci Macky Sall. Mmh. ndax Macky Sall ñi mu yor. Mmh. ñi mu yor te war leen a teral war leen a defal. ñi ngi ne xas bii. jëlal Kaolack gii jëlal Kaolack gii ñu dëkk nii ñun ñëpp. mais l'urgence est à Kaolack. waaw waaw waaw dëgg la musul ñàkk Kaolack musul ñàkk ay ministre la fi ay DG la fi ku ne yaa ngi sauvé amuñ dara suba ba ngoon Jakarta la ñu dawal. ak mu jot ñu yëkkati ay suffrage jox ko ñi xam ne ñoo koy jàppale te nekk ci biir APR sax kenn amatul benn espoir ci loolu. Hmm. ñu wëlbati ko toog teg ci ay leader yoo xam ne jiwoowuñu duñu tuddante non seulement jiwoowuñu seen biir mais duñ jàppale seen i militant. kookan la. ñoom ñëpp ñoom leader yi lay dégg ñu dëkk Kaolack. Ah. ay Rahma ay Pape Demba bi tey ay Mariama Sarr déggoowuñu. jubóowuñu ils ne parlent pas le même langage ils ne font pas les activités ensemble. d' accord te ñu war a def ci seen militants yi dafa des. Macky Sall xam na effectivement ce qui se trouve au Saloum y a des cadres qui sont là ay Moussa Fall ah ay ay xam ne nii man si est à la ñoo xam ni dañoo liggéeyal Macky Sall sonn ci moom su fekkee Macky Sall moo yëkkati deux cent cinquante millions jox la <laughs> barke suba suba si c' est suba suba man tàmbale koo saaga. non loolu. di ko saaga Marième Faye Sall di saaga ñëpp. non non loolu. Ah, non non laay loolu ay waa clan Kacciriyoot la waa Duuli Pram clan clan Kacciriyoot yi. waaw moom laa la wax moom laa la wax ne la gis nga si ñoom nag clan Duuli Pram boobu nañu toog ñu may nit ñi jàmm dëkk bi dañ koy teg ci kaw yoon. Hmm. s'il y a des problèmes on a qu'à aller les régler gis nga ñun on est dans la démarche dans la méthodologie Macky Sall laa gëm te man teguma ko bët Macky Sall laa gëm te recevoir ma waxuma dara. maa ngi dawal oto yu neex di nekk sama climatiseur di liggéey sama liggéey te soo Macky Sall mais je le défends partout. ok ok gis nga ay ay Ousmane Sonko ay nangam sangam yi seen i rien du dara melentaan lañ ci kanam Macky Sall ñii ñii ku ci ah dëkk bi jox leen fan nga jëmale nit ñi. te nga hmm? jëmale nit ñi. fan nga jëmale nit ñi ñii ku jëloon dëkk bi responsabilisé leen ci dara fan nga jëmale nit ñi bii am au niveau de l' assemblée nationale ñu mel ni ay Jacques Sarr mel ni Jacques di wekk di pàdde di def lenn li ñëw di ko fay génn des modèles antidémocratiques. mais et se réclame du patriotisme. ni ngeen def Mimi Touré nag. xam Mimi Touré. na trop Mimi Touré dama la waxal benn affaire hmm. non non pas d'accord. après gis nga su fekkee ne ci xam-xam. Hmm. wuyu ma su fekkee ne ci xam-xam. Hmm. jàppaacoli la su fekkee ne ci wàllu administration jàppaacoli la su fekkee ne ci bonne gouvernance jigéen ju maandu jigéen ju maandu. Hmm. ah boo xam ne nii ci maanaam parce que man dama cee fekk ay action yi action. jàppaacoli la ci mais gis nga su fekkee ne ci politique.

làq nag ay Macky Sall nii Macky Sall naa ñaata décret la ko Macky Sall jox Macky Sall jox na ko ñeenti décret Macky Sall fal na ko ñeenti yoon depuis 2012 bu ci nekk poste de responsabilité la ko jox bu ci nekk poste nag ngeen di poste de responsabilité la ko jox mais fu ko Macky Sall yëpp fu ne rek mu jéem a fexe nu mu comporté Macky yaa ngi dégg. jàppale ñu teg ñu fenn bu ñu bu fekkoon loolu la def jàppale ñu teg ñu fenn kaw la gis na fi am base mais bi mu élections saa yu yegg ci saa yu yegg saa yu yegg fan. saa yu yegg see ci daal maanaam maanaam maanaam loo loo bëgg expliqué loo bëgg expliqué foofu bu ñu ko gagné parce que mais Mame dafa mës a gagné bureau mais Mame Mbaye dafa mës a gagné de vote Mame Mbaye Niang dafa mës a gagné. ci laay ci laay kii. ok ay waxit Mame Mbaye Niang man waxuma ko. ok jéem ma ko xam jéem ma am dara Kaolack gi laay wax man parce que balaa ngay wax Ndakaar da ngay wax Kaolack gii dégg nga. waaw hmm. ah, dëgg la kay. ministre xaaju nit amu ko man waxuma la nit de xaaju nit amu ko bu doon wër fii ba suba bu ñu ba suba su ngoon nii naan ay président yow nan nga bëgg a kañ doon président amoo parti amoo mouvement amoo dara yow nay ngaa jël sax investir ci nit ñi nit ñi jàppale la nga naan mais man man laa injustice bi mu dund laa lay wax loolu mooy wax laa injustice bi laa lay wax de ba lay expliqué wu ma injustice bi mu subir quoi li ngeen ko eh, eh, injecté quoi si siège am loolu laay wax. man siège am. mais de mais siège lañ ko injecté. <laughs> mais assemblée nationale. assemblée ko fi mais bàyyi li ngay wax. Mimi Touré moom bu yàgg xam na ne effectivement moom moom moom Mimi Touré. Hmm. dans son dans son intégrité xam. không nữa er like capna é fere ministre de la justice hmm. ministre de er la justice hmm. ministre de er la justice voilà hmm. waaw maa ngi dégg ay genre nit ñoo jël ay genre nit ñoo xam ne na ma wuñu dara Macky di leen jël. ok. mu wax lu laay waaw laay dem di ñëw waaye bismillah lay man kay la dara lay par force. c'est frustration faut nga que quoi. Sénégal. Hmm. ne Allô Sénégal hmm. Sénégal. Hmm. Sénégal dañ koy ci a une justice et on doit respecter cette justice. mais On amul dit on en comme ñi nga en ne dañoo ci rapport Cour des comptes bi ay Mansour Faye ay bu leen tegul ci yoon gis nga fii kaw la. Hmm. rapport Cour des comptes moom doy na waar quoi. yéeme yéeme na de. Hmm. mais làkk doom dóor doom nit ñi dootuñu ko d' accord ci. ok ku laal ci rapport bi ku takk ci rapport bi na la teg ci yoon. Hmm. parce que Macky il n' est pas mauvais mais il est mal entouré ànd ak ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara sonal ko dugal ko ci ay yenn détails duñu jàppale nit ñi te lu leen Macky war a defal defal na leen. ñun on se bat dem ci plateau yi di wax di wax ak a waxaat mais ñoom ñu ngi nii koo ci woo téléphone sa. du wuyu quoi. entourage Macky Sall bi je le dis nag parce que joxuñ ma ma lekk joxuñ ma ma naan ci li ma ne maa ngi ci ne marché yi ma amoon sax résilier nañ ko ndax lan parce que man sama bopp damay taxaw wax dëgg mais Macky Sall il est bon et il sera bon et il sera là patriote xam ne xamuñ fu ñuy teg seen tànk. patriote yi nga xam ne nii foogoon nañu ñoom ñoo jàng ñoo xam ñoo gën a ñoo sérieux ñoom ñoo gën a nax nañ seen bopp le soleil est pour tout le monde on continuera à les fréquenter te incha allahu rabi li ñuy xalaat ñoom ñoo fees dell ci dëkk bi juum nañ xam nga xam nga lan mooy le problème hmm. ñoom ñoo ëpp lambiñ ci nit ñi ñoom ñoo dàq sos waaw bëri nañu ay waaw bëri nañu ay fenkat nag bëri nañu ay fenkat trop ay soskat moom bëri na fa moom sincèrement ay waaw ay kàcc ay kàcc yoo na fa ay ay gars yi a ah, am na fa bëri na fa trop ñu mën a fen ak ay workat moom bëri nañ fa trop sax donc amee ay fenkat ak ay ak ak ay ak ay ay hmm. la ah Pastef kii bëri ay ñoo xam duñu wax dëgg. lañ ñu ah. tout le temps ah waaw bëri bëri nañ waaw bëri na nag fankat yi bëri nañ fa de. man dama lay xal man man dama lay xal ne la. man affaire laa bokk mais musuma gëm ni Sonko dafa violé Adji Sarr mais su fekkee ni Sonko ñam na Adji Sarr. na xam ni di réew mi mënu koo jiite. Ah man nag du ma ne ñam na ko mais saa yu ma gisee ni xam ne ñam na ko ñam ko ñamaat ko ma xam ni kii mënut jiite réew mi te danañ ci dox ba du ba du jiite réew mi waaw. Ah, loolu moo tax loolu. mais waaw yow yooyu nag président de la Sénégal. Hmm. war a jiite xalif généraux yi war a jiite état yi jiite borom kër diine yi jiite imam yi jiite xutbu yi jiite jiite ay ministre jiite lépp yow buñ nee salaamaaleykum nga dem dàmpalu ji ah buñ nee salaamaaleykum nga dem fee maaleykum salaam nga dem fee kon yow boo yoree pétrole bi maa doo ko bees ci àddina ah ah yow boo yoree pétrole bi kon maa doo ko bees boo yoree gaz bi doo ko bees nit ñi dañoo sonn. il nous faut des hommes d'État comme Macky Sall koo xam il a de l'expérience liggéey dëkk ba mu àgg fii sénégalais yi nañu waxante dëgg su fekkee am na leen loo xam ne il lui reproche man je le reproche à Macky Sall ku ma am ndey ji ku ma amul ndey ji na ko tegg ci justice bi ku ci nekk li nga xam ni moom lañ la war a teg dañ la ko teg mu doon gorom mu doon keneen ak keneen ak keneen. mais lan ngay woowee homme d'état yow looy woowee homme d'état. homme d'état. Hmm. mooy mooy Macky Sall. non wax ma loolu lan mooy homme d'état looy woowee homme d'état quoi c'est quoi lan homme d'état yan yan la war a am quoi d'après yow. en tout cas homme d'état mun naan mel ne mais mu bañ a am qualité Sonko lu mu xam wax lu mu xam wax lu mu xamal nit wax ko lu mu xamal nit wax ko suba ba ngoon day wax dara. ah la wax laay. allo waaw wax nga ne. suba ba ngoon. Hmm. suba ba ngoon. Hmm. suba ba ngoon su waxee lii balaa ngoon a mu wax la ca des. homme d'état lu mu xamal nit. lu mu xamal nit wax ko. voilà dama lay lu mu xamal nit wax ko mais fo lu mu xamal nit wax ko maanaam lan comprendre foofu moom comprendre mu ko loolu bëgg a wax foofu. homme d'état. Hmm. xam nga. parce que foog nga expliquer man homme de caractéristique gu homme d'état laa la laaj. gis nga li tax muy dagg gis nga li tax gis nga li tax muy dagg nii. gis nga li tax muy dagg nii. Hmm. Hmm. patriote yi ñu ngi may woo directement pour dagg sama intervention fii moo tax ma leen di couper ka couper waat nii. waaw ah. loolu nga bëgg a wax foofu ils sont pas démocrates quoi loolu bëgg a wax ils sont pas démocrates loo bëgg a wax foofu. false false sama sama sama entretien beeg yow. Hmm. mi ngi nii di dagg ndax ñoom ñoo may woo pour dagg entretien bi est-ce que comprendre nga. ok ok. waaw waaw man maa ngi lay déglu rek man homme d'état laa bëgg wax les caractéristiques d'un homme d'état quoi. xam ko lu mu loolu dañ koy tere loo xamal nit wax mais attends attends laay loo xamal nit wax ko dañ tere j'ai pas compris. loolu loolu dindi la. la. homme d'état xam nga lan la. ah mooy homme d'état. mën a denc waxtaan am ah, mën a denc waxtaan des nga xam dara ne nuus toog lijjanti ko ci jàpp sa njàmbur yow toog mais loo xam lu ne nit jàpp ci télé bi wax jàpp ci rajo bi wax loolu doyatul nga dem créer sa benn chaîne di wax suba ak ngoon wax on n'a jamais eu une arène politique comme ça. waaw ma rek wuyu ma rek. waaw bu homme d'état tamit homme d'état hmm. toog ñaar ak ñett.

waaw su it ñëpp xam nañu du pour faju mooy faju tamit ci leneen ngay faju yow si nga xam ne foo war a fajoo ak foo war a noosee yow noo yërëm réew. ban rapport la am. dama hmm. un homme d'État doit avoir le sens de la distinction doit avoir le le bon sens de discernement doit savoir effectivement que A c'est A B c'est B quand il faut accélérer tu accélères. Et quand il faut s'arrêter, Quand il faut garder le silence, garde le silence. Quand il faut parler, tu parles. Mais quand tu mélanges hmm. parler et se taire, hmm. diriger un pays comme le Sénégal. On ne peut pas prétendre à diriger le pays comme le Sénégal. Mais comment Ousmane Sonko, il est bon. Il est bon. Il, il, il compte

man kay maa lay déglu maa lay déglu ngay wax la neex rek mais nag loolu moom loolu kii mooy am data kii du am data loolu moom du wax ko vraiment man boobu du wax quoi. dama ne. Hmm. waaw. nañu saaga. ñu ngi nii di saaga lu ne ñu ci dugub. ah non non saaga taxawul fenn rek waxal rek. taxul fenn. Hmm. ça ne me dérange pas. saaga moom taxul fenn jéem a couper live vidéo ce que je dis là. Hmm. ça m'engage ok ba ñuy jàng jàng naa ba ñuy xam xam naa maa ngi liggéey te ñoom ma sama hmm. la ma ci mën a faj maa ngi ko ci faj la ma ci mënul faj ma wax nit ñi ma jàppale. ok wala ñu muñal ma c'est ça. kon jarul ñuy sonal nit ci dara jarul ñuy sonal nit ci dara ñun o au minimum on a été à l'école comme eux on fréquente les comme eux. ci banque yi la ñuy nekk comme ñoom di liggéey laay loolu moom nangul naa la ko laay laay loolu nangul naa la ko gis nga Sénégal benn peuple la. ñuy fen nga fa ñuy fen nga fépp ñuy kàcce ngi fépp ñuy sàcce nga fépp fii xam lan moo fi ne may kii patriote la kee du patriote ñoom ñoo loolu ay identification la mais ñoo bokk benn jikko ñoo bokk comportement ñi ay saagakat ñi ngi fii ñi ngi fee c'est-à-dire amuñu yar quoi amuñu yar c'est-à-dire munoo xàmmee ku nekk patriote

sincèrement waaw. non. Hmm. li saaga Macky Sall. waaw. di saaga Marème di di génn ay dossier di wax. Hmm. ñoom ñooy fees dal ci sa live di commenté di ko yu ndaw di ko ko di yokku information. Hmm. mais gën yoon nga di jiw rek. ñu naan non moo laa lii moo laa laa moo laa si ñoom en fait en réalité. la balle toujours de, euh, dans leur camp. de leur camp quoi. <laughs> waaw loolu la waaw loolu la rek de. <laughs> non non mais wuyu non loolu moom mooy ñoo xam dañuy ñoddi démocratie. xamuñu démocratie non wuyu ñoom daal xam la non mais duma duma sen jaama duma sen jaam sen xoolal sen duma sen jaam do gor ma ne yàtt lu ma man sama nation lay xexal wutuma lu len neex ak lu len nakari te duma sen ginar nenuma ma yaa ngi may depuis depuis mois de mars bi lay def 1 an mois de mars bi ma lay mois de mars bi lay def 1 an 1 an ferme ma ngi taxaw di kaas suba ak ngoon gu dégg bëccëg sonko sonko sonko demb demb demb la ñëw ne la amna nangam mais xoola 100000 saga mais <laughs> c'est normal mais pour wane amuñu sax éducation patriotisme éducation patriotisme. patriotisme éducation la patriotisme ay principe la yo xam un koy mais gars amuñu ko tout le monde peut dire je suis patriote. c'est facile de dire je suis patriote ils n'ont rien de patriote rien. <laughs> te non non lañ mëna fénalaté fenalaatee non lañ mëna fénalaté ak sos. noonu lañ mën a fenelaate ak sos ak ko ñoo mën a sos ak ko ñoo mën a fen buñ la fenelee rek nga naaw buñ la duulalee rek nga tooy ak ko ñoo mën a fen ni ñuy fen ñoo ñoo daa ko duul ak ko ñoo mën a fen buñ la fenee rek nga diit dañuy fen rek di sos sos rek non mais la ma ma ma ma la benn cinq minutes après dem waa eggalin eggalin amul amul différence de waaw vraiment patriote ak waa APR lu ñu leen di wooyee ñoom apérissant non sa sa connexion bi ah waaw le principal fautif hmm. man le principal fautif xam la waaw waaw ñëw la de kan la wax ma kan mooy <laughs> le principal fautif c'est ça en tout cas en tout cas école du parti war na am de parce que man yaakaar naa dañ ñëw pour xeex système mais mais li ma gis nii moom saful saful neex quoi gars mun nañoo fen mun nañ sos mun nañ yokku laay laa maa ngi maa ngi ñëw dem de laay waay moom naa ne bu ma bàyyi fii moom dangay def danga may delloo jamonoy bopp koñ ba quoi da may delloo jamonoy bopp koñ ba. mais laay bëgg naa la nag ah bëgg naa la naa la lool gaan eh, waaw laaj bëgg am na solo bëgg naa la bëgg naa la nga xam naa ni next rek incha allah waaw next incha allah jaajëf waay laay jaajëf bége bége man ñiy woote man man ñuy woote ña <laughs> bëri nañ jot de man de talu may jël talu may jël sax sa waay <laughs> woote bëri nañ jot de man aw ma seen jot sax jot sax awma ma ko barke alxuraan seen jot aw ma ko de. man daal may naa leen Facebook bi mi ngi noonu open lu waay lu waay neex wax mais jot moom aw ma ko pour jël ay appel nii <laughs> talu ko sax eh, kon sama gars yi def noonu it was a good time you know it was a good time ñu ngi leen di bëggee bu wér a di leen màggal maa fi jaaroon affaire yi nag mii fi audio yi mii fi vidéo bi mii fi donc vidéo bi foog mu am ci confirmation rek voilà c'est tout quoi incha allah le combat continue yes I fight the power jaajëf laay bëgge bëgge bëgge peace and love jaarama puissance à bientôt incha allah